Ousmane Sonko di njiital Pastef ci bés yi ñu génn jàkkaarloo na ak ci taskatu xibaar yi ci loolee sax dellusiwaat na ci passeport diplomatique bi nga xam ne wax na ne état bu Sénégal defaral na ko loolee nag mel ne neexul benn yoon waa ministère des affaires étrangères ndax nag daal nañuy def ci ab communiqué rek ki ko def du kenn ku dul ko jiite di Aïssata Tall Sall communiqué boobu nee na passeport diplomatique boobule amul lenn sous judiciaire wax na ne nag ginnaaw ba ñu passeport diplomatique boobule amul benn yoon lu mu mën a gàllankoor ca contrôle judiciaire boobu ma nga koy xamle démb ba tey ci bataaxal bi nga xam ne ministère des affaires étrangères daal dina koy jébbale wax na ne nag 17 juin boobu léegi léegi mat at passeport diplomatique bu Ousmane Sonko renouvelé nañ ko ci demande service assemblée nationale waaye itam ci procédure boobu loolee mënul yàq leen ci contrôle judiciaire ba mu ko waxee ba pare nag avocat yi Sonko dañoo manko ñoom it génne benn bataaxal lañ ca mën a jàngat mu ngi ñaawlu kàddu yi nga xam ne jóge na ci ministère des affaires étrangères ci seen communiqué bi it dellusiwaat nañu ci contrôle judiciaire bu seen client bi nga xam ne nag contrôle judiciaire tey ji buñ ko doon tekki maanaam amoo sañ-sañu génn ci réew mi moo xam nga jël oto dem moo xam sax nga jël avion daal di dem collectif bi nga xam ne nag ñoom ñooy layal loole ñaawlu nañu ko waaye tam ñu ngi wax ñu daal di bàyyi xel ci séparation des pouvoir ñu ne ministre bi kàddu yi mu génnee du moom moo ko war a génnee maître si Cissé ka ñam wàndal ña ngay wax rek lu jëm ci violation secret bu enquête bi nga xam ne nag dàq ñu benn yoon teg ay daan wala sax topp ñi nga xam ne tey jii ña nga koy génnee waaye itam dàq ñu benn yoon ci bés yi di ñëw ñu daal di woote ab jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi moo xam ne fii ci Sénégal wala sax ci bitim réew